Kubra yàgg loolu def ci Badru Kubra pare ci loolu def ci ñetteelaan ba gazwatu Ghatfan Ghatfan boo fa jógee Uhud ci la taxaw Uhud fa tabarakallahu ñëpp xam nañ la ca am yeneen ci biir wax jaay ñu Abdullah bi nga xam ne moom méngoo woon cinquante personnes yi newoon ci kaw naan ilzamu makaanakum sawaaun tasarnaa am intasarnaa ñu jugee ci loolu ñu daal di song song si Bani Nadir Bani Nadir dañ fa jógee ñu ngi am ci atum juróomeel ci juróomeel ci gàddaay ci la amee ñu jógee fa dugg ci suufu Hudaybiya ba yàqu Ridwaan ci atum juróom-benneel ci la yàlla dogale woon lool waaye ñu jógee fa daal di dem ci Ghazwatul Ahzab Ghazwatul Ahzab ñu ngi amoon ci yeneen ci bi ba mu gàddee mu am juróom-ñaari at sanad saariya la waaye ba fa jógee xare yi di dox yeneen ci biir ci wàllu nit ñi gën a fonk ñu pare ci loolu yàlla dogal ñu daal di def fatxu Makka fatxu Makka mi ngi amee woon Siriyatu Mutta Siriyatu Mutta moo jiif moom it mi ngi amee woon atum juróom-ñetteel jóge fa nag daal di def li nga xamante ni moom mooy xaswatu Tabuk ci atum juróom-ñetteel la. boobu ba ñu xaree ba yàlla dogal jullit ñi gañe ba ñu tëddee ba fajar gi Bilaal ibnu Rabaax yeneen ci bi dafa nekk Bilaal lan moo la dal ba nga yéex a noddu fajar pour ñu julli mu ne ko xam naa attaquement bi ma doon def coono gi ma ci jëlee moo ma jàpp ba tax ma xaw a di dënti te li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee xadis bii ni Yonent bi sallallahu alayhi wa فجوك ونجل ربعي ثم صلى وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أصلح الحديث كتاب الله وأوثق العراء كلمة الحق كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة من محمد صلى الله عليه وسلم وأصرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوارمها عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدى هدي وأحسن الهدي هدى النبي وأشرف الموت قتل الشهيد وأعمل وأعمل أمي الضلالة بعد الهدى وخير الملل وخير العلم ما نهى وخير الهدى ما ما اتبع ما اتبع وأشرف الأعمى عمي القلب وشر الأعمى عمي القلب واليد العليا خير من اليد السفلى أي من السفلى وما قل وكفى خير مما كثر والشر معذرة حين يحضر الموت وسر الندامة يوم القيامة ومن الناس لا يأتي من لا يأتي الضلالة إلا دبرا ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرا ولا يذكر الله إلا جهرة وأعظم الخطايا لسان كذوب ينتهي بيوع وخير الغنى غنى النصر وخير الزاد التقوى ورأس الحكمة مخافة الله والنياحة من عمل من عمل الجاهلية والغلول جثاء جهنم والكنز والكنز كي الشيطان والكنز كي من النار والشعر من مذاهب إبليس والخمر والخمر جماع الإثم والنساء حبالة الشيطان والشبابة شعبة من الجنون وشر المكاسب كسب الرياء وشر المآكل مال يجيب والسعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن امه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبه بن عامر ني يانتي بي لا مو واخي نانا بو جولي با باري تان بروم سبحانه باكو كوماسي نك في وار جولي وار مو خامتيني ني نيب سوي في يغوتو نتي يامتي واي يالا دوغال ني نيب سوني خول مواطنين يقل في خليفه من اللي وقت علي مو يتير الله سبحانه وتعالى وقت الوقت الجيف وارات بوارات الجيف وارات تتير الله سبحانه وتعالى يا موتي waye li gën ci yoon yi moy yoonu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam شريعة يكو جيتون شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل أن أقيموا الدين يلا شريعة منكو إندي ci jamono yent yàlla noox avant taqwa dañ daan jàngale dañ daan jàngale sharia waaye daanuñu ko jàngale comme niko ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi dañ daan jëmbat nit ci nit ñi taqwa dañ daan jëmbat ci nit ñi ni ñuy wétalé seen borom subhanahu wa taala motax ngay jang yenen tibbi ba mu ñëwé ci xaaru hira ki nga xamanteni ni jibril fekk ko fa nan ko iqra ma mu nan ko ma ana bi qari'in xaw ni ñuy jànge mu daan ne ko ñu ne jaamu yalla gim doon jaamu yalla fofu ban jaamu yalla la doon jaamu yalla jaamu yalla gim doon jaamu yalla moy tok di imaginer kan mo car asaman mu tëw daan waye kan mo talal suuf mu baña bank kan mo indi asaman si kan mo bind kawnu bi kan kan la ñuy sàbbal kan la ñuy màggal sunu borom bi subhanahu wa taala yamu ci ba tey xissa yépp li ci gën a neex pour waxtaane ko gën cee rafet mooy xissa bi nga xamante ni alxuraan indi na ko ba tey yonent bi di leen wax ni yoon yi fattabi millata ibrahima xanifa wa ma kaana min al mushrikin yàlla dafa wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee da ngay roy ci mbax waye bu fekke da nga roy ci njub na nga top diine ji nga xamanteni moy diine yént yàlla ibrahim ta ibrahim mamam la li waralon lolou moy ibrahim ala ashbahi waladi ibrahim bi ibrahim al musharraf bi tawasin wal hawamim cheikh sid muxtaar waxna ko ci na khatib ki gëna nuru ibrahim yént yàlla ibrahim moy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci jëm waye moko gëna nuru ci topp gi mu doon topp borom bi ndax borom bi moom la ko digal ne ko toppal diine yéen ci yàlla ibrahim ji yemu ci ba tey wa xayru umuuri awazimuha mbir yëpp li ci gën mooy bi nit ku dogu pour mu am asm ak xazmu borom xam-xam yi jàng luxa dinañ différencier seen diggante asm mooy dogu gi nit ki am volontaire ne man dana julli ci ci jumaa ji waaye li confirmer ba ngam julli ci jàmm dellu ci jàmm mom moy mom moy azmu bi bi njëkk bi moy xazmu bi xazmu ak azmu mu ne wa sharul umuri nak muhdathatuha mbir yeb bi ci gëna yes moy li ñi sos ci ginaaw yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ta amul lay ci diine legi yu bari dafa am ci diine lo xamanteni dañ ko ci cuub te boo ko dugalee ci diine doo ko mën a layeel benn yoon yenent bi nee na nag li gën a yées ci mbir yi mooy li ñu sos ci diine te amul cëslaay ci diine amul fenn foo ko mën a layale ci diine te bëri na nag di nga gis ku julli ba pare toog gi muy toog dina dina dina joxoñ penku joxoñ sow joxoñ ndeyjoor joxoñ càmmiñ te ci julli la jóge doon màggal borom bi subhaanahu wa taala di nga gis koo xamante ni dana bind fa mu doon jullee dina raayoo lépp nga gis koo xamante ni fa tabaarakallaahu ni ko mag ñi di waxee di sëqal mbir yi muy def te yooyu yëpp ay muxdasaat la fi diini sos ci diini donte nag ñaan fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi te yeneen bi sallallaahu alayhi wa sallam daan na wax ni bu leen di julli jullig naafeq ñu ne ko luy jullig naafeq mu ne mooy ngeen julli rek pare na bërét danga war a toog ñaan sa borom subhaanahu wa taala bu fekkee am nga ay aaju waaye léegi jaamu gi ñuy jaamu yàlla yàlla bëreetu ci cër ndax yonent bi am na beneen xadis boo xamante ni jooy na ba xusayfa fa ko maa yub kii ka yaa xayral anaami lu la jooyloo yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko kayfa laa ab kii wa qad yati ala ummati zamanun yufqadu fihi l islaam nan laay bañ a jooyee te jamono ñi ngi ñëw ci sama xeet turu lislaam rek moo fay nekk waaye waaye jëmmi lislaam dundatuñ ko dañ naan lislaam laa jullit laa mu'min laa waaye dundatuñ ko léegi ci réew mi gis nga imam bu jiite ba tàyyi génn ñu ne ko sa julli gi macha allah neex na te ki ko ko wax du moroomam ni góor ni moom keneen ak ko wax mu ne ko yow laa ko tuddee nii nga gisee ci lislaam nit ku la deful dara nga mën a toj boppam wala jam ko paaka ngir jël li nga xam ni moom moo nekk ci loxoom wala li nekk ci ay poosam ana lislaam ji imaam ni nag wa ashraful mawti qatlu shahidi mooy bi ma doon wax léegi bi gën a baax ci dee yi sahid bi gën a baax mooy ki rey ci yoonu yàlla bokk na ci ki rey ci yoonu bi yàlla jàmbur boo xam ne da doon tukki ji tukki gi mu doon tukki pour lu mu faggu pour mën a dundali njabootam rek moo ko taxoon a jóg nga fexe ba kar ko ci yoon ba dëbb ko ay paaka yamoo ci nga jël lim yoroon daw walla nit koo xam ni faggu na ba am wërsëg wu lew woo xam ni falay sutralo nga ñew bay bu guddii nga tijji buntu ba jël lam fa yoron lepp lim doon sutralo neena nak yoy yep day am te ñaare likoy indi mi ngi sababoo ci nit ñi shahid ci yoonu yalla bu njëkk ci xare lañ ko xamoon waye léegi ci jamono moy nit ko xamanteni mi ngi top yalla ci diir top gi mi top yalla ndok dal ko ci te liko ci dal bu mu yobbu ci bakanam koku dafa shahid ci yoonu yalla anwaawu shahidi nak yi bari nañ xeet bi nit di shahidee bari na shahid dañoo taxul jug fa tabarakallahu moo tax ñu koy gàttal nee na nag gumba ba gumba jeex ku bërëm bëtam muuru mooy ñun niñ ko xamee mooy ku doon gis te gisatul imaam nee na du du ki nga xam ne da daan gis te gisatul nee na ki ki ñàkk gis-gis mooy koo xam ne yàlla tegoon na la ci yoon seytaane jay la di la jay ba mujj nga daraaye yoon boobu nga xam ni toppoon nga ko topp yoonu seytaane kooku mooy ki gi nga xamante ni manqué na gis-gis dëgg-dëgg wa xayrul ilmi ma nafa xam-xam yi ci gën bi ci gën mooy xam-xam boo xam ni borom dana ko jëriñoo ba pare jëriña ci kooku moo gën ci xam-xam yi mu wax ni nee wa charu nadamati yowma alqiyaama réccu mën naa am ci àddina borom yaakaar ni réccu na nee na bi gën a yées ci réccu yi mooy kii dem ba yomal xiyaam di réccu te maa ngi laa yëgal ni loo baax baax di nga réccu nga mën cee déggee ni safaan bi loo safaan safaan di nga réccu kon jéem a réccu lu baax loo doon def ci àddina moo gën fuuf nga dem ba yomal xiyaam di réccu safaan boo doon def billaahi ku ñu fi jàpp ba tëral la ci kuusu bàmmeel nga war faa xaar nit ñi ñu deewandoo par benn benn ba yomal qiyam taxaw nga naan aka yaa tani yaa tani yaa tani yaa tani yooyu yëpp ngay dégg li waral doomu aadama di ko def mooy nekkul woon ci lu baax ñi ne ci lu baax sax tey jël seen wërsëg di def ci nit ñi di tabax jumaa yi di tabax daara yi fa tabarakallahu di gasi teen suñu dajeeg borom bi danañ rëcc lool danañ ne suma sama àddina yëpp maa ngi ko jëmale ci lu baax ngir yàlla mën maa fay yiw bi nga xam ni def naa ko lii mu mën koo fulandi masamala ki nga xamante ni nag musta def lu baax wala li mu def ci lu baax bariwul moom li nekkoon yitteem ci àddina mooy luy féewale nit ñi li nekkoon yitteem ci àddina mooy toxal wax fii yóbbu fële li nekkoon nit ci àddina mooy fa tabaarakallaahu jël yëfi jàmbur li nekkoon yitteem ci àddina yépp mooy bañ a topp boroomam waaye di mooy moroomam képp koo xamante ni nag daje nga ak loolu imaam nee na riccu dana am te li gëna yees ci réccu moy dem ba yomal qiyam di réccu bakkar bo doon def donte sax ki def tiyaba dana réccu lutax mu doon def lu tuti li kon ñi def tiyaba yépp yal na leen yalla fay ñi nga xamanteni ñi ngi safanu yal na leen yalla gindi bañu dajje ak li nga mom moy euh mooy ngërmande borom bi wal yadul ulya khairun min as-sufla neena loxo bi fete kaw di joxe mo gën loxo bi nga xamanteni day talal di laaj loxo bi féete kaw di joxe motax ñi am ta yalna may leen yalla na leen yalla may xol bu ñi joxe ndax baax na ci lool ñoo ngi profité di gërëmaale di santalé serigne Abdou kunta Fall ku am taxaway la ci dëkk bi ku am taxaway la ci dëkk bi ci ay taxawayam juma ji taxawayam mo waral mu taxaw waye dëkk bi ak tundu bi kenn xifu fi kenn maru fi te lepp taxawayam la yalla nako borom bi gëna taxaw bu baax yalla yok ko bi jahi nabi sallallahu Alaihi Wasallam. وحني والكنز كي من النار نياس نياس لا نانا كوبر فور بو نيت كي دنج تا باج كو ген ديباسي كو سي يونو بي الله كي لا كي متى ما دانا بحرك من كدور فصاف سلسل بحر امين الى متى تلين الى كي قلبي بنار الحب كيا غير هون بروم نون يلا الله nee na nee na ñaa kañ ba kañ yow àddina ngay bàyyi sama xol bi nga jël di ko ñaas ñaas ñaas la arab naan këy moo xam nga jël paaka bu tàng teg ko ci bërëb boo xam ne nga ko ci ñaasee pour xàmme ko nee na nag ki yor koppar fooram bañ koo dépassé ci yoonu bi yàlla dafa mel ni koo xamante ni jël na safara di ko ñaase boppam wal këy wal kënz inna al ganiya min ar rijaali mukarramun tara yurja ma ladayhi wa yurghabu ku am alal ku am koom dañ lay màggal dañ lay tatagal dañ lay sàmm waaye koom googu nga am ma na nga yëg ni na nga yëg ni nit ki la la yént yàlla Moussa la ko yénent bi la ko borom bi subhanahu wa taala waxoon ne ko kun waasiqan bi rizqin madmuunin laka ma daamat xaza ini marzu mamlua wa xaza ini lan tanfada abada na nga wóolu wërsëg woo xamante ni bind naa ko ci yow ni bala ngaa dee danaa la ko jox maa daamat xasaa ini mamlu'a fekk gëm nga ni sama koppar foor gi du jeex mukk man borom bi subhaanahu wa taala wa xasaa ini nag sama koppar foor gi ma yor lan tan fada abada yàlla laata ñoo judd ba tey mi ngi xéewale te xéewal gi dañuy dem ba ko fi kon borom bi subhaanahu wa taala mooy borom xéewal waaye bu joxee xéewal borom ki ko jox mu téye ko na xam ni mi ngi jël ay ñaas-ñaas ci ñaas-ñaasi safara di ko ñaas boppam mu ne wax ne wa chiaru min mazamir iblis nee na way dafa bokk ci piano yi seytaane yi nga xamante ni ci lay jaaree pour jàpp ki nga xamante ni xolam woyof na ndax chiaru alquran nee na wa ma allamnaahu chiara wa ma yambagi lahu in huwa illa dikrun wa mubin ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر خملوا نكو لوي الشعر وي وي ني واخني نك مدح النبي موام اك مدح التكسبي تي ني جانغ شعر تاغ ينتي على محمد اك تاغ كنين كودول ينتي صلى الله عليه وسلم غير لوم لا جوخ nga def ko ci sa pos مدح التكسبي لي waral ينتي صلى الله عليه وسلم بن دمتي غزوة غزوة الأحزاب ولا غزوة قدق قدق بني غس كانوا تسلمان فارسي جاهي وان استراتيجي بنين نان غس نو ديغن نخمي بني نيوي نيوم دو نيو ام اكسي نخمي خيف دانا لين جابو اك بني مونا تورني عبد الله بن رواحه دا فا جيك واي بن واي ن السماء مجدنا وجدودنا وانا لنبغي فوق ذلك مظهرة ñun kat am nañ teddange ñu ko jëlé ci yonenti bi mu déparé nak ci suñuy maam yo xamanteni mën nañ leena sauver ëlëk wa inna la nabgi danañ xemmem fawqa zalika gannaaw loolu lu fété lool madhara madhar yonenti bi nenañ huwa afsah man nataqa bi daadi moo gën dégg arab kuy dégg arab ba pare daa ji laaj ki nga xamanteni moy Abdullah ibn Rawaha ne ko lan ma huwa al mazhar lan moy mazhar Abdullah ibn Rawaha ne ko المظهر يعني هو الجنة mel ni nag way Iblis dana ci jaare pour not jaam bi wa shu'araaw yattabi'uhum baax na yatba'uhum baax na alghaawuun alam tara annahum fi kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquluuna wa annahum yaquluuna maa laa yaf'aluun waykat yi waykat yi buñ ko waxee waxuñu tàggkat yi yeneen ti bi waykat yi di nga gis ko xamni limu sawar ci jox ko taggkatu yonent bi limu sawar jox ko ci ki nga xamanteni da fay way tagul yonent bi sawaru ko jox ko ki nga xamanteni da fay tag sallallahu alaihi wasallam da ngay taxaw rek mu yëkëti alal ju bari di la ko baatere ci fo xamanteni public bu bari fay nek imam tek ci nak hadith bu am solo wal khamru jimaul ismi neena ndox mu bon mi nga xamni nit da koy naan pour ak sagom mom mo dajale bakkar yep yep yep amna borom borom am na bindkat bu bind nii tafaqada malikun daaran lil majanin fa wajada min baynihim shaabun ixtabarahu fa wajadahu aaqila fa qaala lahu sa uxrijuka min huna qaala bi shartin an tujiba ala su'ali mata yajidu naimu laddatu nawmi qaala qabla alqudumi fi nnawmi qaala ataxduru lazzatu cheyin qabla qudumihi dafa am bour bo xamni ni ci jamono dafa noton ñep bañuy seen xel yi manqué woon da leena tek place nit ñi duma leen genn fi luddul ko xamni nat ni ba xelam mat ma do ko genn fi mu fekk ben waajo xamni ni natt na ko ba yaakaar ni xelam mat na mu ne ko yow da ngay jóge fi ñew jageñ si ma ci ñi nga xamanteni ñom lay laay ak di lekkandoog ñom mu ne ko da ngay tontu ci laaj yi ma lay bëgg laaj soko tonté ma nangul lool mu ne ko yan laaj mu ne ko mataa yajidu naimul lazzatu nawm kat bi kagn lay yëg ni mi ngi nelaw kagn lay yëg banexu nelaw mu ne ko qablal quduumi fi nawmi avant mo dug ci nelaw yi mu ne ko ataxduru lazatu cheyin qabla quduumihi ndax mbir laata nga ci dug mën nga yëg ni yaa ci banex bi mu ko fi nawmi ci bir nelaw yi mu ne nawmi tufqidu shuur fa kayfa tashuru bil lazza nit ki buy nelaw ay sentiment am day dàq kon nan nga yëgee yang ci banexu nelaw yi mu ko yow dal deug deug nanguna ni wér nga génn ko nak guddi jot ñépp di naan ndox mu bon moomu nga xam ni imaam nee na jiwaawul ismi ñëpp di naan ndox ma mooy sàngara ngeen baal ñu dañuy jàngale mu dof bi ni ko yow mën ngaa naan lii yow bu fekkee da ngaa naan lii dangay mel ni man dof bi waa man su ma ko naanee kan laay nuru su ma naanee sàngara si man kan laay nuru kon damaa dof ba pare yow mi nga xam ni nag buur nga naanagoo ko soo ko naanee dangay mel ni man lan nga ci mën a déggee. wa wahjuril xamrata in kunta fata kayfa yas'a fi jununin man aqal bëri na waana koo xam ne ku xel woon la ba mu naanee ndox mu bon moom mu tàqalikook sagoom ki mu rusoon mu bañ koo rus ki nga xam fi nga xam ne ñemewu fa woon ñemewu ko woon mu sañ koo ñeme yooyu yëpp imaam nee na lii dajale mboneef mbonteef yëpp mooy sàngar yàlla nañ ci yàlla mu muccal waxtu bi nag mooy bëgg a jot waaye xadis bi ëpp na lii fuuf fuuf di leen wax ni ci ndigalu imaam Eh, dafa am gan yu fi rotti seigne ababakar sar ak seigne Ousseynou Ka ak seigne Abdou Fall ak sunu ndijay pap Fall ño len fi indi te ñom ñi kuñ fi indi ku ne rek war nañ ko jappé ganuk sëriñ bi wala ganuk imam ndax ñom fa tabarakallahu taxawaay yi ñam am di len wax ni yi ngeen jité ci rew mi yal na yalla barkel yalla yal na yalla taxaw len taxaway bu upp bi ngeen ñort yalla jéggal ñu suñu bakkar gamu gi ñu jëm yal na yalla nangu yalla bepp jaamu yalla buñ ci def yalla nako borom bi nangu ñu fekk ko ati bari at bu ñew daq bi wessu wa fiikum barakallahu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اما بعد اما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته ولزوم أوامره فإن التقوى شعار المؤمنين وجزار المستقيم ووصية الله تعالى بي وبكم أجمعين أيها المسلمون اتقوا الله بما أمر واجتنبوا كل ما نهى عنه وزير أيها الإخوة الكرام أخرج البياطي بالدلائل بن عساكر في تاريخه عن عقبة بن عامر الجهني قال خرجنا في غزوة التبوك فاستقعد رسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان منها على ليلة فلم يستيقظ حتى كانت الشمس كرم فقال ألم أقل لك يا بلال اكلأ لنا البجر فقال يا رسول الله يا بدي بالذي يا بدي فاتقل غير بعيد ثم صلى ثم حمد الله وإثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأشرب الحديد ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور خواتمها محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأشرب الموت موت قتل الشهيد وعمل عمل الضلال بعد الهدى وخير العلم ما نفع وخير الهدي ما اتبع ما اتبع والشرع نعم القلب واليد العليا خير من اليد السفلى وما خل وكبى خير مما كبر وألهى وشر المعذرة حين يحضر الموت وشر الندامة يوم القيامة من الناس لا يأتي الصلاة إلا دبرا ولا يذكر الله إلا جهرا وعظم الخطايا بلسان الكيوب وخير الغنى غنى النفس غنى النفس وخير الزاد التقوى ورأس الحكمة مخافة الله وخير ما وقر في القلوب اليقين والإثياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهل غلول الجلال جهنم كالكنز كنز من كي من النار والشعر من مزابل إبليس والخمر ماء والنساء حبالة الشيطان والشباب شعبة من الجنون وشر المكاسب كسب الرياء وشر المآكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره والشقي من من شقى ببطن أمه والحمد لله رب العالمين كنا لنهتدي ولولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأستودع هذه الشهادة به لي عنده وديعة لا أن ألقاه أما بعد إخواني المسلمين يدعوكم إلى ما دعاكم إليه البر الرحيم في كتابه الحكيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فامتثلوا الأوامر واجتنبوا الكبائر والصغائر وتزودوا من يومكم هذا ليوم الأخير يوم تبلى السرائر ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون عباد الله آمنوا بربكم ونبيكم واتبعوا الرسول بأقواله وأعماله وأخلاقه وأحواله قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللهم ألهمنا ذكرك وأوزعنا شكرك وعزنا من مكره وألزمنا العمل بأمره وأمدنا بالدنيا والآخرة بعونك وحولك وتوفيق اللهم انصر اللهم انصر أمراء المسلمين واجمع شملهم ووحد صفهم وكلمتهم وكسر أصدقائهم وأهلك اعدائهم آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وسووا صبوركم وتماسوا وأقيموا الصلاة